su ñu jógee ci affaire ñaari député yi dañuy dem fële ci euh, Serigne bay Thiam bi nga xamante ni moo yor ministère bi nga xamante ni moo jëm lépp lu jëm ci wàllu ndox jamono ji gis ngeen ni que affaire Sen'Eau indi woon na fi ay coow maanaam kuppiiru courant yi coupure ndox yi bare na quartier yu bare soo fa demee pour ñu am ndox lu doy waar la tey soo demee cité Aliou Sall ndox bi ñuy naan maanaam amaanaam ndoxu foos mooy génn ci robinet yi.

tey Serigne Mbaye Thiam mosoon na taxaw assemblée nationale ci décembre bii ñuy passé nee na amul benn facture boo xamante ni yokk nañ ko suñ ko yokkee demal nga defi ci sa réclamation ma xamaloon ni ko sëñ Mbaye Thiam soo taxawee assemblée nationale di wax loolu amaana yow doo fay ndox wala sa waa kër kemul di foofu dem fay ji ndox tey soo amoon facture bu ëpp nga yóbbu ko réclamation Sen'Eau danañ la jaabanteloo si cinquante mille bureaux ba nga xamante ni dangay mujj découragé te kenn du mës a faj sa soxla chaque jour nit am ay réclamation benn nit bu doon fay dix mille francs nga xëy benn jour sa consommation yokkul ñu indi la cent mille francs yooyu yëpp ñu ngi koy jànkonteel ci réew mi waxuma la loolu coupure ndox yoo xamante ni ay quartiers yoo xamante ni pour ñu am ndox deux heures du matin la ñuy am ndox une heure de temps la koy am robinet yi coupé am ñoo xamante dañuy fanaan guddi di xoolee di xaar robinet yi donc problème yooyu mi ngi am jàppale ni kat ak coow loolu yëpp nar na wadd ci ndodd kii nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Thiam jamono ji ci chaise éjectable la nekk nañuy jàpp ni que président la république Macky Sall su doon def remaniement Serigne Mbaye ministère bu moom muy nekk ginnaaw loolu Si siège exactable boobu di Serigne ministre de l'eau va-t-il résister à la pénurie d'eau et à la cherté des factures de eau c'est dire que Serigne Mbaye qui est sous pression et sur la satellite confie le député Mamadou Lamine Diallo le ministre Serigne Baïtiam, sur siège exactable, a promis un audit des factures à l'Assemblée nationale sans doute pour dégager en touche croit en savoir le leader du mouvement Teki, Mamadou Lamine Diallo il rembobine ce travail est immédiat. Tout le monde constate que les factures ont augmenté alors que les consommations restent les mêmes. Il est bien connu que des millions d'euros ont été dépensés pour gagner ce marché. Est-ce que le consommateur sénégal doit rembourser ses dépenses que personne ne connaît, sauf le maire incompétent de Saint-Louis, dauphin caché de Macky Sall du koku nak du samay kaddu muy kaddu kii di Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki jàppale ni ka dal xamal ni ka kii di ministre de l'eau di Serigne Mbaye Thiam est-ce que mën na résister jamono ji ñak ndox bi nga xamanteni askan bi ñu ngi koy dundé cherté facture yi nga xamanteni askan bi ñu koy dundé jamono ji mom mo nekk ci pression nekk ci salaire bi nga xamanteni mom la tok kii di Serigne Mbaye Thiam mom mo promettrone ben benn facture fofu ci assemblée nationale muy audit bo xamanteni ni boobu ken léegi ko mu dégager en touche lepp lo xamanteni ming ci bir bu len fàtte ni que état du Sénégal dafa yëkkati won ay centaines de millions d'euros def ko ci bir est-ce que tay tey ñu jël population bi peuple bi bëgg len faylo frais yo xamanteni sen yon neeku ci seigne mbay cham waxon na fi assemblée nationale amul ben facture bu yokk man damay naan seigne mbay cham su waxé lol daf fekk mom fayul facture man mi di wax ak yeen sama facture musul dépasser 3000 mille francs ndaxte suñu kër kenn du fa fóot ab lenn ñett nit a fa nekk suma kër ñett nit a fa nekk sangu ak naan 3000 francs mosuñu ko dépassé facture bi passé ñu ngi ñu indil facture 7000 nangam sangam am koo xamante ni mi ngi dëkkandoog man moom facture am mosul woon dépassé 4000 francs tey ñu ngi ko indil facture 10000 francs alors que consommation weddiwul facture yaa ngi nii ma leen di tegal sañ Mbaye Thiam nga koy xool kon soo toogee assemblée nationale di naan facture yi yokkuwul wala ndox coupé parce que yow sa kër dañ koy ravitailler secteur bi nga dëkk duñ ko couper mais bul foog ni Sénégal ci yéen la yem ndaxte bureau yooyu ngeen toog ministère yooyu ngeen toog oto yooyu ngeen di dawal salaire yooyu ñu leen di fay ngeen di jël seen doom di leen yóbbu ci yenn écoles yi di leen yóbbu à l'étranger jàppaleen ni askanu baadoole bi ñoom ñoo koy liggéey muy seen taxe di seen ay impôts yu ñuy fay moo war a tax tey ngeen yor oto bu bakkane moo war a tax ngeen am ay carburant yoo xamante ni ñu ngi koy jox kon askan boobu da leen war a delloo lu ñu moom seen eau privatisé ngeen SDE euh, e. ban lan la réglé lan la réglé laa bëgg nga xam SONES moo fi nekkoon bi fi SONES nekkee ngeen indi SDE SDE doxul ngeen indi seen eau seen eau moo gën a bon kenn mënta am ndox foo dem ci àdduna ku robinet yaa ngi coupé demal cité Aliou Sall lañ fay nan manam l'eau n'est pas potable ndox bi propre manam ndoxu force lañu ñuy ubbi ci robinet muy génn ci robinet bi lo xamanteni tay c'est anormal au 21e siècle ñu koy gis ci capitalu Sénégal muy Dakar cité Aliou Sall sorewul mi ngi fi côté Guédiawaye côté Golf kon lolu ñu ngi ko fi gis nga tek ci sa beut ñu won la ko ci télévision won la ko partout tay nga war a défendre askan bi nga ne facture yi cherul ndox yu coupé wul dafa fekk demo ñaari tali dem ci robinet yi xool nañuy yendoo demal Grand Yoff gaay yi dañuy taxaw ba deux heures du matin demal assani 4 heures du matin la xaar surtout ñu dëkk ay troisième étage quatrième étage dañuy xaar ba dëkk premier deuxième paris, te ñuy guttu 10 litres ko ci am donc je crois que jamono ji Serigne Mbaye Thiam li euh, mouvement tekki ci siège éjectable nga nekk le président Macky Sall est en train de refaire en train de gagner la confiance des Sénégalais il est en train de gagner la confiance de son peuple il est en train de gagner la confiance de l'Afrique du dara moo tax tey def ko président de l'Union africaine kon tay amna yenn nit yo xamanteni muy appel bi may lancer personnellement man Seydina Tange Serigne Saliou au président de la République Macky Sall am na ñoo dañuy tilimal ce gouvernement amna ño xamanteni so ni sans sen pas tay ndox Sénégal su ñu ñàkkoon ndox Macky Sall su liggéeyoon cent choses tey ci defaraat dakaar mu mel ni Paris wala mel ni amuñu ndox nit ñi mer boobu colère boobu suñ ko amee dañuy fàttee li nga liggéeyoon kon ñi nga xamante ni tey yaa ngi leen teg ci ay post ministre te doxaluñu li tax ñi def leen fa gënuñu ëpp ñu compétence kenn ëpp ñu xam-xam kenn jël leen nga changé leen ku am compétence nga teg ko foofu en tout cas muy Serigne Mbaye Thiam na jàpp ni ko jamono ji mi ngi ci siège éjectable tant que réglé wu ñu facture ndox yi wàññi facture yi nga xamante ni ñu ngi élever ay compteur di créer ay compteurs yu bees yoo xamante ni ñoom ñoo xam naka lañ ko trafiqué ba nga xamante ni soo waroon consommer benn mètre cube da ngay ubbi robinet bi rek mu yóbbu la vingt mètres cube loolu yëpp nañ ci jóg kon arnaque bi mi ngi ci biir dëkk bi mi ngi ci biir société yi ñi ngi arnaquer seen peuple tey nag suñu demee ba ay sénégalais di arnaquer seen doomu dëkk je crois que xamatuñu ban dëkk lañ ne kon le président de la république son excellence marketing ñi ngi lay lancé waat appel askan bi sonn nañu robinet mi ngi coupé guddi ak bëccëg kuy kamat am na ay quartiers yoo xamante ni soo fa demee quatre heures du matin la ñuy am ndox am na ay quartiers yoo xamante ni mën nañ toog deux jours du ñu gis gurtu ndox nit naka nga mën a dëkkee ci kër war a am ay soxla war a am ay besoin war a jàpp jaamu yàlla war a dem toilette war a sangu war a fóot surtout ñu yor ay xale yu ndaw te mënoo am ndox askan bi ñu ngi sonn factures yi rax ci dolli dafa cher a cher a cher ki doon fay dix mille tey indil nañ ko facture trente mille te amul benn justification euh, boo xamante ni mën nañ la ko jox kii contrôlé suy contrôlé doo ko yëg day ñëw ubbi compteur bi xool marqué lu ko neex loolu tamit war nañ ci jógaat donc tey ñu indi la ay facture yoo xamante ni yow leer na la consommé ko tey ñu ngi dundaloo askan bi métit boo xamante ni kenn tegu leen ko ku dul ministre bii nga xamante ni moom lañ teg ministre de l'eau muy Serigne Mbaye mom bañ ko nee ndax mën nga nekk ministre de l'eau dafa nangu ba mu nangoo ñu tek fa kon war na remplir condition yu tax ñu tekk fa ndax te wer bu dee bu jot salaire mi ngi voiture de fonction mi ngi carburant am lépp lay jot ay frais de mission ay ordre de mission mi ngi koy jot te loolu yëpp mi ngi ko jotee ci alalu askan bi alalu baadoola yi nga ko soxlo te ñooñu jox la seen alal tey yow mënuloo leen jox dox en tout cas le président de la république son excellence ñu ngi lay lancer alerte di la lancer message jamono ji li jëm ci wàllu ndox problème la ci biir Sénégal kii nga fa teg nag muy ministre bi soo demee conseil de ministres na la jox ay explications.